fu ne rek Mbathio gaa yi. non Mbathio fu mu bokkul neexul artistes yi dañ koy xëccoo. pour man nag pour man pour man relation yi ma am ak artiste la ak pour man aussi sama talent. sa talent parce que tey boo ne tey da ngay yóbbu mbaacu mbaacu dina ci def li ko war. Mm-hmm. comme niñ koy waxee dinaa sañse li ma war a sañse ah sama bopp en valeur lu ma war a mettre sama bopp en valeur ba su ma yéegee ci kaw chaîne bi. Mm-hmm. même boo dégluwul musique di nga kontaan sa xol dina set di ngay nga jooy. Mm-hmm. dafa lay <laughs> nga jooy daal ñu bëgg ñu bëgg participer ci émission bi nag bëri na euh, tey moo moo xaw a sant Ndiaye séeréer tey moo sant Ndiaye moo tax euh, dégg dugg bi du mën a neex donc ñu ngi nuyu bu baax a baax Penda Evans Prod Penda Ndeye Penda. sama xarit ma Ngor chéri ma Ngor Dieng. waxal waxal Mbacco kër yi waa Penda Evans yëpp a ngi koy nit ku baax. xam naa ne sama téléphone bi lañ Penda jigéen bu baax nit ku baax. Ndeye Penda nit ku baax la sama dëkkandoo la moom may profité ci occasion bi di ko nuyu ndax moom moom nit kenn du ko doyee dara lu dul baax. Hmm. Ndeye Penda dafa baax dafa maa bëgg. vraiment day sonn ci man te xam naa ne day sonn ci man. Penda Evans yëpp nuyu naa leen chéri ma Ngor maa ngi koy nuyu borom mixa kontaan ci moom di dem nag ba Chine xam nga Chine fu mu nekk ni bi 2 heures du matin moo fa jot. mais terewul ngoone madame Diack mooy suñu euh, consul bi nga xam ne fa la Macky Sall Macky Sall fa la ko teg. muy madame Diack tey boo fa demoon tey biir Chine mu ngi mel ni soo gisee consul bi mu mel ni gis nga Macky Sall. Mhm. parce moom moo lay accueillir moom jabaram ngoone di nit ku baax. Euh, damay wax ne man aw ma fayam. bi ma demee Chine ñoom ñoo ma jël sama hôtel yóbbu ma seen kër vraiment accueillir ma may waroo dal otel madame Diak ci palais sonn ci man ngóone madame Diak borom dàll yu baax yi cheveux lu mu doon xam naa dama lay boole waa plateau bi <laughs> dàll góor dàll jigéen yére lu ngeen bëgg il faut ngóone jaarante géen fi mu jaarante ak man mm-hmm. nit ku baax la ngóone madame Diak mu ngi seetaan moom doom nday béti mm-hmm. di leen nuyu daal di nuyu waa Chine di leen wax ne bu yëpp débloqué mënumaa ñàkk ñëwaat Chine daal incha allah <laughs> am na ci koo xam ne nag ñun euh, bon comme que serveur bi doxul dañuy jël engagement woo ko en direct parce que xam naa ne du ñàkk émission yu mel nii da ciy bëgg di participer. Mm. waaw koo yàq koo hmm? ko yàqul jëm. de. Mm. xam naa yaa ngi xalaat ki mbaa ci di bëgganteel. waaw ah, du ñàkk nag kii kooku. kan mooy ki ngeen. waaw ki naan moom ni muy feccee ko neex. non du moom. mbaa ah. ji foog mu ñëw ci ki muy hmm. mais foog ma woo euh, kii certainement surprise lay nekk ci mbaaco. yàlla na ñu ko yàlla na ñu ko jot. ñu hmm. xool téléphone baa ngi sonné. Ah, téléphone baa ngi sonné ñu xool. waaw ki naan ah. yaay booy noo def. Hmm. waa waaw man la Mouhamed bu Sen TV. <laughs> waaw ñu ngi sant bu baax baa yaa ngi am jàmm. maa ngi am ah yàlla na jàmm yaa ngi. baal nañ leen baal leen ñu àq. yàlla ñu teewee ko ay déwén. yaa ngi amiin. ay yaay booy yaa ngi en direct Sen TV. maa ni woon sax woo nañ la. donc ñun ñoo ko bëggoon defal surprise bu mel nii woo ko euh, pour nga mën a pour nga mën a wax ci moom euh, tuuti ci émission bi ah, Sénégal Sénégal yëpp a ngi lay dégg mais moom moo bëggoon nañu wax kan ngay woo instant yi. yaayu Mbacco laay woo yaayu Mbacco Ndiaye. waaw. Ah, ah, dëgg la. maa ngi koy ñaanal rek dafa bëgg a déglu yéen yëpp ak yéen yëpp yal na la ko yàlla ñun di eggale. amiin amiin incha allah. doom ju baax ci man nag ju ma yëg yëg ay bokkam. su doon su tiimee lekk sax ba ma téléphone dama yaaloo reer dama yaaloo ndékki ma yaaloo añee man Koungheul laa nekk moom mu nekk Dakar mhm. waaye fàtte ma fàtte ma fàtte ma ay bokkam dem ba Dakar am judduwaat mhm. ñun xamoon ñëpp xam na nga xam ay bokkam dëgg la foog ay doomi ndeyam dëgg la li ma koy ñaanal kay mhm. ak fa mu bëgg a yegg moo xam yàlla na ko fa yàlla yonent bi yeggale amiin amiin amiin incha allah waaye man daal ragal naa ne daal fu mu a bu neexee yàlla incha allah teg naa ko ci loxo yàlla incha allah ndax daal wax dëgg yàlla. Uh-huh. ah lu ko war yëpp mu ngi koy def. lu mu ànd bokkoo ma lu mu xam waxal ma. yàlla na yokk su too gënee waaye yàlla na yokk su xëyee. Uh-huh. dana ma oo téléphone lépp juróomi yoon. bu ma sëb jilaal dina la ma oo téléphone. yaa da ngaa tudd xanaa da ngaa nelaw ma wax nelaw ko man su ma woowee nag ma waxee ndànk. Uh-huh. su ma woowee ma waxee ndànk ma bëggee xaar ndànk laay wax. su ma xewee mu ne yaa ngi wax ndànk di lan la ma ne ko dara mu ne ah da ngaa da ngaa feebar ma ne ko déedéet ma ne ko da ngaa bëgg a di xaalis daal bu génn rek daal daal di ma daal di yónnee xaalis. am am am nu mu def ak yow. waaw am nu mu def man. du ñàkk waaw. wax dëgg yàlla de maa ngi koy ñaanal de. ndeysaan. maa ngi koy ñaanal de maa ngi koy ay bokk yëpp a ngi koy ñaanal. Mhm. sant ko daal gërëm naa ko. dëgg la xaaral ma koy ñaanal de fi ñu toll nii jëkkër ju baax ju ko attan. xaaral ma jege ko sa yaay booy maa ngi nii du ko bañ de maa ma xaaral ma jege ko. bu a defee bu ko defee mu gën laa dégg waaw jëkkër ju baax ju ko affaire laa ko laa ko laa ko ñaanal. amiin yaa rabbi. waaye muy wax dëgg yàlla ah sant naa ko daal sant naa ko sant yam daal. ndax boo na sama doom la force déedéet par la naa ba ci mo moo dootu dootu xamal ay bokkam sax gisuñ ko fi. dëgg la nit mën naa dem dem ba ci yàgg tolluwaay tolluwaay boo xam ne xam fa fa ñu nga la. waaye moom bu téye ma katata katata bu koy naa oma na ma yaay lu ngeen lu ngeen liggéey te yaay loo liggéey léegi démb rek wóor na yàlla waxtu yi man passé naa wax yoo xam ne amul. léegi bi confinement bi am ni programme couvre-feu bi am. mu jël na kii ba sonn. mu jël benn conservateur ba ci oto oto yi fi aussi oto yi fi ñu taxaw. yónni ma conservateur bi fekk mu ne benn frigo. yónni naa benn micro onde. daal ñu ne yow am na ko am na maa bëgg jënd ay jën jënd moom jënd Dakar laay lekk man lekk ma jënd Koungheul de. jënd Dakar laay lekk loolu. Dakar laay lekk wóor na yàlla waxtu yi yàlla heure bi may wax ak maire bi. ay coof yu baax. mu jël mu jël ay bagage jënd ay jën ay juróomi kilo ay lu ñu jënd ay si lu mu jëndal. yàlla na jot bu ca oto boo ñëwee ba ca oto xale boobu xam na xam nañ ne nu guur la ñu ne ko. ñu koy bëgg ko santaar. mu ngi bagage mhm. ci kër. Mhm. lii oto cent mille. Mhm. billahi wala yàlla loolu da ngaa wax ak maire bi. dëgg la. li may wax wax nii ay fukki fan juróom naa ni xam naa ni ci bagage yëpp naa ni booy seede ci moom booy seede ci moom duñ fi duñ fi jóge émission bi sax dafay jeex euh, dafa dafa dafa dafa dafa hmm. mu koy déglu gaal ci son ko fay ndeysaan yàlla na yokk waaw yàlla yokk man kay naa koy ñaanal daal fa a yokk moo xam yàlla na fa yàlla yonti ak borom jaama ah, kontaan naa ci moom trop naa ci ni baax ngeen wax yéen ngeen bëgg rek mbaa jërëjëf seen du ko invité ko bëgg rek jërëjëf jërë ngeen jëf kontaan bu baax a baax. waaw baax na waaw ayca jërëjëf yaay booy. incha allah ñëpp a ngi lay dégg ñëpp a ngi lay fay. ayca nuyul ñu waa Koungheul yëpp. incha allah jërëjëf yaay booy. Mbaaco. Hmm? coppati. <laughs> <laughs> Nafi li neex na ci xol de mm-hmm. ah. liggéey ba màgg fàttewoo fi nga jóge mhm. parce que gis nga doon jóge village du du gàcce sax la mhm. parce que dalay gën a yokk jom te moom fàttewul fi mu jóge donc def naa ni kàddu yooyu seen bopp nag ah? ñoom rek ñoom kese ñoom waaw ñoom dong fi dëggal seen bopp waa Koungheul waaw maa ngi profité ah? ci occasion bi di leen nuyu baax a baax nuyu ah? waa Koungheul di nuyu waa kër Malle sama kër papa. Mhm. di nuyu waa Malika. Mhm. Euh, fi nga xam ne tamit fa laa juddoo. di nuyu ñëpp nuyu naa waa Koungheul ñëpp su ma limee juum sama ñoom tante sama rakk yaay ñoom ñëpp daal nuyu naa ñoom ñëpp dañ ciy jàpp. Mhm. bëgg ma rek te yàlla tax vraiment. te mënoon te mënoon na leen cee bañ a fekk. sama yaay mi fi jógee nag léegi moom su may wax moom moom moom. ci moom émission bi sax daf ci xaaj. kon moom maa ngi koy ñaanal gudd fan wér gi yaram ba sama yéene rek àgg ci moom. incha allah dëgg la yàlla na yokk amin ah. allahumma amin amin ay te dañuy ñëwaat ci dañuy ñëwaat ci émission bi ah bëgg naa ñu dem seetaani benn vidéo mbaaco bu ko tey mbaaco rek mbaaco kese <laughs> saa tey ngay xam ne xewoon